trois espoirs. macha allah moo daan li nga décortiquer ci combat Boy Niang ak Tapha am na solo loolu léegi dañuy dugg ci troisième komba bi mu nekk komba boo xam ni Pikine la ak Parcelles parce que ku ne Modou xam ni def na pikin loo xamante ni mbër mu su ko faa def mën nañ ni ku ne Ama bale tamit dugg na parcelle tooñ tooñaat tooñaat ndax daan na fa Papa Sow te Modou Lo dégg nañ na si weeyu béy dem na pikin daan fa ku mel ni ay ñoom Paate Baldé ak yooyu noonu mais Modou Ama Baldé moo daan ta waaw Modou Ama mooy combat capital bi mhm. mooy combat njarndéem bi mhm. mooy combat bi nga xamante bi nii sénégalais yëpp moom la ñuy xaar mhm. mooy combat bi nga xam ne mën na dundalaat làmb mën na dekkilaat làmb mhm. parce que lu tax mhm. ci popularité bi mhm. Modou boo dee xool ci génération amul ku ko ëpp mbooloo Ama boo dee xool ci génération làbbili na karawaas amul ku ko ci ëpp mbooloo pour fi na def na li mu war a def si làmb nga gis ne Modou 2005 2006 la ñëw dugg si làmb bi mu duggee si làmb gis nga ko aussi tamit kalaaf bi nam fa def da leen a daan ñoom ñëpp dem final daan sama papa Boy Kéré génn foofu noonu. Mhm. ni mu amee Balla Diouf. Mhm. nga xam ne ñu ngi ko bëree woon 8 février 2009. Mhm. Balla Gaye ak Eumeu Sène ñoo doon bëri grand combat mu bëri spécial. waaw ba mu jógee foofu jël isaapu yi. gës ba mu jógee ci isaapu yi ba ni mu bëree Balla Gaye Balla Gaye daan ko ba ni mu bëree Bombardier. ba nii mu mujj a bëri ki nga xam ne mooy Eumeu Sène. mooy Eumeu Sène roi des arènes. Ama nekk mbër boo xamante bi nii. Pikine boo demoon. dun ne la Ama mooy mbër bi mhm. Paate Balde lan la daa wax mhm. ne la mooy mbër bi mhm. Zil Balde lan la daa wax ne la mooy mbër bi wala Papa Balde mais Ama bàyyiwuñ ko woon xel mais papa ji nag préparé woon na ko parce que xam na ne Zil man naa bëre mais taay bi mën na koo handicapé paate man naa bëre waaye day fo xale bi am na gëm-gëm mën naa bëre waaye màggagul waaye nag ba mu màggee nga gis ni mu def ci mbapat yi muy Ama Balde Ama Balde nga gis nga mbapat bëre na ci lu xaw yaatu bëre na ci ak Boy Niang ci ay tournoi mhm. nga gis moom ak ñoom Pambay mhm. moom ak ñoom Fadam Junior moom ak mhm. ñoom Marley gars yi bëri bëri nañ mbapat moom Ama Baldé nga xam ne am na lu mu def ci mbapat moom Maga Seck aussi tamit nga gis bi mu ñëwee si arène premier combat am mm. ñu jox ko Ousou Ndiaye bu bàcc Seras ñoom mm. ñaar ñoo bokkoon Pikine mm-hmm. moment boobu Ousou Ndiaye ngi taqe ama mm-hmm. mosul bëre mm-hmm. Ousou Ndiaye am na ay quelques combats nga gis biñu bëree ci xeetu jël bam ko daan jour boobu la bëre premier combat am 2009 andi fa mboolo boo xam ne grand bi sax andiwuñu ko ba mu jógee ca combat boobu nga gis ñu jox ko kat yi wax dëgg yàlla foofu la mystique gu Ama Baldé njëkk a feeñe ñu bëre ñoom ñaar ban tàqale leen kat dem ci ay mbokkam ne leen gisuma ki may bëreel <laughs> moom Ama Balde. kat yi na gisul Ama Balde coow li nag kur ñuy takk ñuy taal bopp wut ay briquet di taal bopp beeg affaire yooyu. Mhm. ba ne ko Ama mujjee dóor mu daanu. Mhm. mu jógee foofu jël baay pël troisième combat am bëreeg baay mhm. xam nga baay pël signature ba coow li bëri xam nga. jouru combat bi ñëw baay pël mel ni gisul Ama Balde. Ama di ko sëkkatal di attaqué muy génn. booba Modou Lo ngi si cummikaayu baay nga xam ne ñoom ñaar rànk ne yàgg na boobu fekk na Modou daan amaa Ama Balde ba pare. Mhm. mais Ama Balde nag loolu metti na ko. Mhm. ba troisième combat mu dugg biir parcelle. Mhm. jël baay pël. nga xam ne moo sës ci Modou xarit doomu ndey. mbokk Modou Lo. Ama Balde daal di am dam ci kawam nga gis ni mu percé jóge foofu ba nim première defatu bébé saalum Ama Balde daan ko fa jóge foofu di percé ba cinquième combat am la bëree grand combat daal di koy daanu 2010 drapeau Ndeye Khady Gueye digganteem ak nees nees daal di koy daan yaa ngi dégg. Mhm. yàlla dogal nag combat bi taxaw na. combat bi mu taxawee yàgg na trop. Mhm. le 25 décembre yaakaar yaakaar naa ne léegi mu ñëw. waaw incha allah rabbi moom lañ jàpp mais ci promoteur bi laay njëkkee rek. ji bi muy suñu papa Luc Nicolaï. Mhm. moom yàlla may na ko chance su événement. moom lu mu tëgg tey bu tëggan yaawu jaala gaynde sax événement lay doon. day neex parce que tamit lamb yàlla day da koy mooñaale ak doomu aadama. dëgg am na genre doomu aadama yi lu mu dugg. day am coow. macha allah. ñu yéene ko ko trop. combat bi nag. Mhm. man bu ma doon mooma dama naa koy teelal la def promotion bi. Mhm. parce que marchandise. Mhm. bu tollew ci jar da nga koy jaay koy jaay waaw man mi di wax ak yow jaaykatu tisi la <laughs> des fois nga jënd tisi bu bees da aj prix bi clients yi ñëw di la ci fay prix bu raisonnable jaayoo ko ba yàlla dogal beneen waa ci fekk ko fa waaw da nga koy da nga koy mujjee day lambu kon marchandise bu ci jaar jar na ko jaay na média tisi na tàmbali promotion bi. parce que mhm. combat mooy combat capital. capital mooy combat royal. Mhm. muy combat bu neex war na mën a commencer. Mhm. face to war na mën a décentraliser face to face yi sax. yóbbu Gambie. yóbbu Europe. yóbbu feneen ak feneen. yaa ngi dégg. combat amaa Baldé Modou sax face to bi bu fekkee ne dañ koy def entrée. gars yi dañuy ñëw. dañuy ñëw parce que jaral na leen ko ñaari mbëri jaral na leen léegi nag combat bi taxaw na jibi Modou moo mën a nekk favori bi. waaw Modou parce que yaakaar naa ne ku ne Ama Baldé mooy favori yaakaar naa seetaanoo làmbu Sénégal. waaw parce que parce que tamit du ma la dog mais da ngaa wax catégorie da nga ne Modou Lo ñim daan. maanaam daan na Isa Pouye. Modou Lo daan na Papa Sow. Ama Baldé daan na Papa Sow. Modou daan na Paul Maurice. daan na Balla Diouf mais Ama Baldé daanul ñooñu nag. waaw boo dee xool nag Modou tàkkusaan yi ma am Ama amagu ko. waaw mais mi ngi ci yoon bi. Mhm. dama la ciy génneel ñaar. Mhm. takkusaanam nga ak bombardier. kan Modou Lo Modou Lo. Mhm. takkusaanam nga ak Balla Gaye ak mhm. te ñooñu bu fekkee ne Ama day bëreeg Balla Gaye. Mhm. ñooñu ay adversaire am la ñuy nekk ci kanam. waaw ñu nekk ci kanam kon Ama amagul takkusaan yooyu moo ko jiitu ci làmb. xam nga. yàlla dogal na loolu. waaye nag Moodu am na combat de. Ah. waaw. kon gars yi naan Modou Lo lii du combat ñu ngi nax. Modou Lo buñ wax loolu. ah waa parcelle de loolu la ñu nee nañ ah lii du xam nga lan mooy problème bi. Mhm. Ama Baldé tey instant yii nii. Mhm. bëreem. da mhm. tax kuy bëreeg moom. di nga am adversaire sérieux. mbër la boo xamante ni dafa fonk bis. Ama Baldé. Ama Baldé. mbër la boo xamante bi nii dafa tarbiyewu làmb. mbër la boo xamante bi nii. dafa yàgg ci kippaaru mag. mbër la boo xamante dañ ko waajal. kon kooku da ngay am tàkkusaan waaw bu mag boo xoolee digganteem ak tafaatin mm-hmm. nga xam ne ama mbër la boo xamante bi nii ah mbuusu xale la buñ sol yàpp mag nga xool diggantee ak Malick Niang mm-hmm. Malick Niang daan fi ay ñoom Sakal. Mhm. daan fi ay ñoom Sokosim. Mhm. daan fi ay ñoom Adama Diouf. Mhm. daan fi ndaanaan yu bëri ñoom Khadim Ndiaye numéro 2. daan fi ñoom Sa Thiès. gis nga moom ak Ama. Ama da kaw ba pare daan ko. nga xam ne kon Ama war naa jot ñu bàyyi ko xel ci làmb. te mbër la boo xamante bi nii. lu mu jàpp lu nekk moo ko moom. parce que du toog di déglu kenn. moom day bëre. bu la jàppee. dina def li nga xamante bi nii mooy l'essentiel. li ma entraîné gëm ko mhm. dinaa ko def mhm. muy làmb mhm. yaa ngi dégg mu nekk mbër boo xamante bi nii ñi mën a Modou Lo torop te moytul ma ku la ñi mën a Ama mais nag gars yi damay dégg ñu ne si public ama ñemee na Modou Lo mais bu ñuy tëjee barrière yi en privé waaw ñemee ko <laughs> ah, loolu laa dégg gars yi ko parce que amaa li muy wane ci biir làmb xaw ma ñoom ñaar en privé li làqu seen diggante de mais li ñuy wane ci biir géew ama amul mbër bu muy xofal ama mbër bu muy xofal ci Sénégal fii amul bu arbitre bi sifflé ba mu def li may def bu attaqué day dox sa kaw. boo dee xool Ama Baldé dugg na tooñ na tooñaat dugg na biir parcelle. daan fa bàyyi pël. Mhm. dugg na parcelle. Mhm. Balla ju doon te yoof mais daan na Balla Diouf. Mhm. xam nga daan na Papa Sow xam nga daan na aussi tamit Zos. waaw xam ne am na lu mu fa def. Modou Lo aussi tamit lu mu def Pikine. tey boo nee reen bi gën a mag biir Pikine rek Modou Lo ko daajee. Eumeu Sène Eumeu Sène day doy mais nag si kaw loolu parce que Eumeu Sène tamit roi la woon. Modou loo jëlee ko te Ama Baldé dafa bëgg a ñëwaat jël roi bi yóbbuwaat ko delloo ko Pikine Modou. waaw ah, moo tax ma ne la combat bi revanche la ci biir revanche rek. Mhm. mënta yomb parce que Balla Gaye boo dee xool génération moo ci xëc njëkk a xëccoo roi des arènes. Mhm. te bi mu ñëwee da koo jël. da koo jël ba mu koy xëccoo 2009. du moroomu Balla Gaye ci génération. dëgg la raw mhm. Ama Baldé nag ay moroomam tamit moo ci njëkk am chance su xëccoo roi des arènes. ndax dina ko jël. nag attention. gone parcelle bi ku ko am mhm. xam ne am la bis waa loolu la ñu wax nag guddul rëyut mhm. tollul ni nit ñi dëgg la mais nag jom ji ak caay-caayu biir géew bi ak man a bëre gi mhm. ak caay-caayu làmb gi daan na ku ne Modou Lo mooy Modou Lo ndeysaan parce que xam lan moo tax mbër la boo xamante bi nii dafa teel a dugg si làmb dafa teel ba mbapat mhm. dafa teel a gëm boppam mhm. dafa teel a am passion ci biir làmb muy mhm. bëgg-bëgg xam ne lii bëgg naa ko te dinaa ko boo dee xool bi muy débuté gars yi dañ ne ta nekk roi des coow li na kur te yaakaar naa ne tàkkusaanam gaak bombardier wan na bombardier loo xamante bi nii waaw bëri na oh, oh. bëri na ba daanu c'est autre chose beneen affaire dafa bëri ba daanu dafa bëri ba daanu ko xam nga mu nekk mbër boo xamante bi ne pour bu ma ko andi woon mu war a bëreeg a Baldé dama naa koy bul ñëkk bul am kersa bu rëy. loolu laa njëkk a dindi ci moom. parce que tamit la ndax Modou Lo seetlu nañ à chaque fois buy daan loolu moo koy daan. ñeg muy contre Balla Gaye coup bi mu jëloon ne gars yi ne dafa waroon a génn. ba ci contre Bombardier Bombardier tamit dafa waroon a reculer. yoon jàllut. waaw mais mu continuer di forcer. te Bombardier amoon na deux avertissement temps bu jeexan moo doy am ndam. ndeysaan foofu lay njëkk a amee roi des arènes. Mhm. mais lamb am na foo xamante boo fa toolee. Mhm. da jël sa temps. Mhm. combat Modou Lo ak Ama Baldé. Modou Lo bu ma doon moom dama naa koy contactal andil doole andil sérénité muy dal andil confiance bu wér sa cumikaay nag na nga ko respecté bu fa kenn dugg bu fa kenn xëpp leen bu arbitre sifflé génn seen diggante biir géew bi xam naa ne mënta ñàkk lu fa police yi bëri bëri dérangement dina fa ci entre ñaari cas yi mais nag lu si mën di am yow loolu na ko mën a toléré ba arbitre sifflé génn seen diggante bu Ama Baldé doxle doxee sa kaw bu arbitre sifflé Ama droite lay jiital Modou jiital goos bu Ama sëkkatalee dox sa kaw defal déplacement latéral comme ni nga doon bëreeg hmm, comment il s'appelle Paul Maurice. Paul Maurice waaw. dagg léewtoo bi dem gauche ñëw droite dagg léewtoo bi dem gauche dem droite bu maamee sa kaw nga jam arrêt gauche. comme gauche ngay jiital nga jam arrêt gauche. bu dal bu dawee songu la nga kor ko. Mhm. ñam hypercule ñaari yoon ba ñetti yoon. Mhm. bàyyi ko mu génn. Mhm. xam ma la wax. loolu bu ko bëreeg Ama Balde mën naa am ndam si combat bi. Mhm. mais bu fekkee ne dafa ñëw taxawal dëggal boppam combat bi am cinq minutes. du am cinq minutes même moom bu dee daan ko Ama dee daan du am cinq mhm. bu ma ko andi mhm. na arrière na jël temps na dagg léewtoo bi na def ay déplacement latéral. Ama bu fekkee ne dama ko andi si combat bi. dama naa koy entraîner ba yaakaar na tey ngay dee. Ama Balde. ñaar ba ah, yaakaar Ama nag mi ngi entraîner ndax nee ko Sénégal mi ngi entraîner mais dama entraînement jër ta wax hmm. boo sumee ba def yaramu neen lépp feeñ parce que li yëpp feeñ hmm. kon foofu lay amatul hmm. entraîner ba yaakaar ne tey ngay dee ñaan loolu ba yaakaar ne combat bi mystique moo koy gañe fonkal sa bopp te confiance bi nag bu ko jiital de trop te bul yàkkamte victoire bi ama bu mu yàkkamte victoire bi bi buy daanu jël bu soof lay daanu Ama Baldé waaw parce que bu yàkkamte victoire bu jàppee rek day bëgg a def action fët fët mhm. te contre kele mën na ko dal boo xamante bi nii buy daanu du ko yëg mhm. ba ari ciblé li ma koy wax mooy que andil duyal say tànk ba mu fees dell mhm. entraîneel ba fees dell ñaan loolu ba mu baax ba ari ciblé fermil sa garde droite nga doon jiital doxal ci kaw Modou Lo lii maa la ko te boo jàppanteeg moom bu nekk kor bi moytu ko sa loxo féetale ko ci suuf bu lay kor fexeel ba jàpp ko point boo jàppee point defal l'essentiel muy bëri te fu mu ko jàpp day bëri Ama Baldé bu ñu bëree mu neex de. Hmm. lii maa la ko wax. nga yaakaar ne combat bi du def 3 minutes ba 4 minutes. non combat bi tey bu defee 5 minutes. Hmm. jël la am. Hmm. dina baax ci Modou dina baax ci Ama mais bu demee à l'usure digalu ko Ama. kan la Ama. digalu ko loolu.